te du ànd ak benn coono teral ñoo ko bokk Euh, jërë ngeen jëf ci ànd beeg euh, Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen ba noppi li gën a fees ci bopp xibaar yi muy nag euh, plateforme mintilit doy na daje nañu ak taskatu xibaar yi nii duñu seetaan ñuy faagaagal kii di Ousmane Sonko ay kuréel yu bari di ay collectif ñoo ca bootu gannaaw bu ñu demee ca kër waxtaan ak moom lu yàgg ñu nag jóg nañ ngir jàppale ko te duñu nangu démocratie di deltu gannaaw ci bi mu réew ñu wax ci leneen muy nag mbirum Covid bi suba ci talaata ji la ñu war a door ñaq yi tey jii ca bi ñu dénk wàllu paj mi action sociale ku ko jiite Abdoulaye Diouf Sarr teg na comité bi nga xam ne moo war a saytu mbir moomee ba lépp jaar ci yoon ak ña nga xam ni ñoom la ñu tànn ñu war a njëkk a ñàkku mu ngi leen di woo ngir nag ñu ñool ñàkk yooyee ba ñu mën a def ay jéego ci xeex lii di mbas mi dugg ci biir réew mi denc ñëw ak Fatou Bintou Diouf lu toll ci fukki junni ak ñaar ay étudiants yoo xam ni ñu ngeeg seen i bac ci seen i loxo te mënaguñoo bokk ci benn université amaloon nañu ndaje ak taskatu xibaar yi bëgg nag ñu orienté leen seen ëllëg la ñu bañ ku ko tey lee jëriñ ju ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi li leen naqari moo leen ko tekk jublu nañ ci xeex bi te duñ ci deltu gannaaw lu ñu am jël euh, moo gën ñuy toog di xoolee euh, seen ëllëg ñu koy taylee li moo gën a fes ci bopp xibaar yi bu ñu ko faram-fàccee magazine ba la ca des Moustapha Diop ñu koy bàyyee ci kanam tuuti ñu benn benn ne duñu nangu benn yoon nguur gi di ko faagaagal ak ak yelleefam duñu ko salfaañe jàpp ne réew mi démocratie bu ñu ko bàyyee mu jàll dinañu am ay dooxi doona ginnaaw bu ñu demee waxtaan ak moom ca këram dinañ ci teewluwaat euh, Serigne Gueye euh, moo demoon ca seen ndaje mañ doon amal ak taskatu xibaar yooyu ci mbirum Ousmane Sonko la ñuy des ak mbootaayu étudiants ya nga xam ni ñoo nekkee ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru bokk na ca Pastef UCAD FRAPP UCAD waaye tamit waa Gelawaar ni am na jafe ñu gis du jur jàmm ndax nag ak ak yelleef ñu nga koy salfaañ bëgg rek képp ku laal ci Ousmane Sonko ñu daal di lay faagaagal jëfandikoo ëttu attekaay bi dugal leen seen poos fa leen di rëddal la ñuy jaar du ñu ko nangu tey du ko nangu ëllëg xeex baa ngi doog kenn ca ñoom Mbaye Ndiaye la ñu teewlu ko fa ak xandoog ma demoon. ñetti organisation ñoo daal di daje pour jëmale li nga xamante defal li nga xam ne moo di point de presse FRAPP U4 la PASTEF ñu dajee ndax dañoo noté nii dañoo gis ne depuis le 8 février maanaam ginnaaw affrontement yi amoon buntu kër Ousmane Sonko dañoo gis ne il des arrestations arbitraires ñoo xam ne jàpp nañ leen ci jàpp na leen injustement depuis lors il a des enlèvements également une chasse à l'homme yoo xam ne note nañ ko ci te loolu noonu dafa nekk loo xam ne dañ koy dénoncer dañ koy dañ koy métitlu ba pare di ñaan nous exigeons di wax tamit nañu libere les prisonniers politiques ñi nga xamante ni jàpp nañ leen Dakar ak ñi jàpp Casamance ñoom ñëpp ñuy jàpp ak ñi ñu jot a sachet enlevé fii nii ci biir Dakar nañ leen libérer le plus vite possible immédiatement et sans condition. depuis monsieur Macky Sall ci la accédé au pouvoir depuis 2012 dañu noté ni day utiliser l' appareil étatique pour xeex. contre ay opposants politique maanaam ay ay ñoñam yoo xamante ni ñu ngi ci kujje politique yi dañu gis mu leen xeex le cas de Karim Wade gisoon nañ ko fi le cas de Khalifa également gis nañ ko fi kon tey bu ñu demee ba bëgg a pour éliminer Ousmane Sonko ñun dañuy xeex loolu nga xamante ni injustice la parce que ñu toog gis injustice bañ ko xeex te ñun nag dañoo bëgg a rappeler également que la personne de Ousmane Sonko ñoruñu mais li ñu ñor moom mooy euh, son projet mais aussi nous voulons défendre la démocratie et la justice ndax loolu noonu mën na dal ku nekk. Euh, ci mbirum Ousmane Sonko la ñuy des ak société civile bi bokk na ci waa Amnesty International Seydi gasama ni lettre bi nga xam ni takk der yi def nañu ko di noggutu képp ku ñu yaakaar ni ñaawteef bu ñu def ci ay doomu aadama mën nga koo siiwal mbaa nga koy naqarlu ci jëm société civile bay boo ñu toog ndax nag kenn du leen tiital du leen xoqatal seen kuréel yi àdduna wërngal képp la ñu bootu lu ñu gis lu jaaduwul ci noot doomi aadama dinañ ko wax Seydi Gassama Pierre Edouard dafay la jokkal ci téléphone. communiqué police bi ñun li ñu ko jàngatee rek mooy police dafa bëgg évidemment menacer kuréel yi fi nekk di xeex ak yaramu doomu doomu Sénégal nekk seen biir ñoom ñoo ko yore du ay gan kuréel yooyu yàgg nañ fi di liggéey eh, te méthode yi ñu utiliser pour liggéey méthode yi la waa Nations Unies di utiliser pour liggéey moom la bépp kuréel buy yëngatu ci doomu aadama ci biir àdduna di utiliser pour liggéey eh, surtout ci wàllum torture wàllum torture li wax mooy war a wax ci kaw ñu exiger pour que enquête mun a am ndax convention des nations unies contre la torture moom moo nekk Sénégal daf ci bokk dafa ne saa yu amee ay allégations yi tuuma rek tuuma yooyu malheureusement fii procureur duñ ko def kon ñun li am mooy yëkkati suñu baat wax ko ci kaw pour que évidemment pression mën yokk ci kaw justice pour ñu mën a def liggéey boobu may wax ne tamit que ci ak seen communiqué ñu ne wéy ñu ngi leen di tuumal te ñi nga xam ne ñoom police ne ñoom xam nañ te ñun xam nañu ne tey ci biir àdduna force de sécurité yi n'est-ce pas am nañu ay technique de torture yoo xam dañ li ñu bëgg am ci yow te du des dara du des ci sa yaram ci mbirum trace kon buñ fi nekk dañuy wax waaw amul ay ab médical parce que ñoom am nañu ay panoplie yoo xam ne mën nañu torturer nit dara du des soo xam ne médecin mën na ko constater kon nañu ànd liggéey pour dindi fi torture kon nañu ànd hiérarchie policière ak état ñu xeex dindi fi torture bi dafa bokk dafa bokk ci ñàkk a dormal ormal doomu adama que di ko jàpp di suba ci talaata ji campagne ñàkk ci wàllu mbas mi suba lañu ko bëgg a door ca ministère bi ñu dénk wàllu paj mi ak action sociale Abdoulaye Diouf saa tey ji ci yoor yor teg na comité bi nga xam ni moo war a saytu ñaar téeméeri junni ñaq yooyu ba ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn war leen a njëkkee ñu mën caa ñàkkoo te mu leen di ñaan njëkkit ñu jël yooyu la ñàkk jubu ci xeex bi ñu teewlu ko ak Fatou Bintou Diouf moo demoon. tey nag bés bu màgg la xam ngeen ne àdduna bi depuis at mi ngi jànkoonteeg benn jafe-jafe boo xamante ne lëmbee na àdduna bi yépp Sénégal le 2 mars ba li passé at la jot premier cas wu coronavirus ba mu ko jotee ba léegi son excellence le président Macky Sall. def si moyen yépp pour que ñu mën a réussir suñu riposte loolu nag dafa nekk lu am solo moo tax président ne nañ ko defee nu mu gënee nañ ko defee nu mu gën a gaawee nañ ko defee nu mu gën a leer si askan bi a Ndiaye directeur de la prévention fàttali na sànq ñan ñooy cible prioritaire mooy ñan lañ koy jëkk a mooy personnel de santé ñi xamante ne ñoom ñooy nekk ak feebar bi bés bu jot mais aussi ñi xamante ne dafa am feebar yeneen yu dund ak dundaaleel ba bu leen virus bu duggee dana leen gën a sonal am na ñeneen ñoo xamante ne tam prioritaire lañ mooy ñu am 60 ans et plus bon dem ñooñu ñooy la cible prioritaire mais du càggi ne si ñooñu rek la ñuy des bu ñu paree ñooñu stratégie bi day continuer parce que objectif bi mooy fii ak deux mille vingt deux pour que képp koo xamante ne war nañ la vacciner rek vaccin bi yegg si yow loolu nag lañuy ñuy démarrer si démarrage boobu nag si ñaari principe yi xamante ne président daf nañu respecté ko moo ñu fi dajale tey daf nañu respecter le principe de l'équité et de la transparence moo tax commission technique ñi ngi liggéey mais dañuy teg benn kuréel boo xamante ne au niveau national la na lañ leen dénk mooy saytu. di xool ndax mbirum vaccination bi mu ngi koy dérouler si ni mu waree respecte ñaari principe yooyu mooy équité ak transparence ci wàllu mbas mi la ñuy des wutali benn diwaan ca Linguère jàpp daara foofu mouvement bi nga xam ni ab mbootaay la tuddee boppam tey gi jëm suba daan na yóbbu ay masque lu toll ci fanweeri junni jagleel leen ko waaye te taxawu na lu toll ci fukki ndaw ak juróom boole leen ak benn auto ekool mu jàngal leen ñu mën a dawal oto ñu teewlu njiitu kuréel boobee Maram Sall teewlu ko ak Dudu Thian. li ñu fi indi tey affaire pandémie bi gis nañ ne Sénégal fi mu toll nii pandémie bi sonal na leen trop c'est pour cela ñuy ñëw pour jàppale suñu population jàppale xale yi xam ne xale yi yi dem école ñoom ñoom la gën a touché ba nga xam ne bu leen laalee rek seeni parent ak réew mi yëpp dañ ciy jot c'est pour cela que nous avons amené trente mille masques pour ñu distribuer ko ci école yi euh, ci école yi ci tout tànk yi ba ci école yu gën a mag yi on a parlé du permis de conduire pour les pour permis de conduire yi aussi kenn ku ne xam na ne jamono métti na ba nga xam ne bi xale yi xale yi Sénégal yëpp ñu ngi jël géej pour nag loolu ñu dugal ci suñu tànk yu moo tax ñuy ñu fexe ba nga xam ne bi xale yi danañ am métier am permis mën a liggéey seen bopp mën a liggéey ci service public yi mën a dawal bu fekk ci am jakarta nga dawal ku mu amul jakarta nga mën a am sa oto dawal. biir école de formation bi jël nañ ci fanweeri xale yoo xam ne yi 15 yi. ñoom léegi léegi lañ leen di wutal permis 15 yi ci des. fii fan yu yàgg dana leen former. loolu it ñu def nañ ci ndimbal lu toll ni ñaari million loolu daal mooy li nga xam ne lii mooy suñu contribution. pour la population du Djolof. kon euh, fanweeri ndaw la ñuy tàggat ci wàllu permis ngir ñu mën a dawal seeni woto fukk ak juróom yaa jiitu ya ca des dinañ leen jël euh, ci weer yi bu ñu sukkandikoo ci maaram sàll mi jiite euh, mouvement APD ñu gën koo xam ci aujourd'hui pour euh, demain ñu wax ci leneen mbirum jàng mi toll nañ ci fukki junni ak ñaar am seeni bàkk ñu ngi ko téye waaye nag dugg ci daara yu kawe yi moo leen tëni orientation yaa génnagul mer nañu tàmbalee ñaxtu dajeek taskatu xibaar di ñaawlu euh, jëwriñ di ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi taxawaay bi mu am jàpp nañu sax dafa sobental seeni mbir te kenn du tey la seen ëllëg la Souleymane Diouf la wax ak suñu naataangoo ma ñu demaloon di Moussa Sène waaw li soxal mooy parce que depuis un an ñu ngi taxaw di xeex suñu orientation waaye ñu dara loo xam tamit ñëw na suñu kanam donc pour di leen rappeler maanaam euh, à 2019 à 2020 état bi sacrifié na fukki junni ak euh, fukki junni ak ñett fukki junni ñaari bas fukki junni. ak fukki junni ak ñaari bachelier euh, ak juróom-benn fukk ak fan fanweer ak benn yoo xam tamit ñu ngi fii nii te kenn ci ñoom jàngul. pour vous dire que maanaam Cheikh Oumar Anne lu muy wax ci média bi bokkut ak lu muy def ci ci ci suuf. léegi nag ñun dañoo son ci wax ji parce que à chaque fois ñu ngi taxaw di xeex suñu orientation te ba léegi gisaguñu dara loo xam tamit dal na suñu xel tey jii ni ministère bu ñu ko éviter euh, émission penc euh, faram muy taxaw di wax ne orienté naa ñëpp alors que ñun ñu ngi fii ni doon fukki junni école yoo xam te am amul kenn ko xam jàng na ci nekk na mbir boo xam ne yéeme na trop trop waaye li may lancé mooy comme président moo joxoon ordre le 5 août mu wax ne maa dinaa orienté xale yi nga xam ne am na amaguñu orientation am pour naa sooy sooy les bacheliers yoo xam tamit am ne suñu xam nekk na mbir boo xam ne vraiment yéemen waaye li may lancé mooy su fekkee ne ñoom dañoo bañ lànk ne duñu duñu ñun bu soobee suñu borom dañ jóg xeex li xam ne tamit moom moom moo ñu war parce que directeur Amadou Abdou Sow nekku ngi nekk que moom bu osé wax du ma orienté la parce que école euh, université dañoo fees nekk na mbir boo xam ne tamit euh, vraiment maa ngi koy waaye tamit xaalis buy jël di ko fay député yi xaalis xaalis buy jël di ko di ko fay euh, ministère yi lan moo tax ñoom mënuñu koo jël def def jox ko étudiant pour moom ñu mën a jàng parce que étudiant ñoom ci ci boppam amuñu capacité dem école privée loolu ku ñun ñëpp xam nañ ko te ay doomu béykat la ñu fi nekk ay doomu maçon ñoo fi nekk lan moo tax nag ñoom aujour ñu tamit jàppe xale yoon tamit parce que seen avenir si jàng la nekk Macky kon yaakaar naa sax du doon président en compagnie de de de ses collègues quand même. fala ñu dooree woon muy front Minutes Lutte doy na taxaw nañu fas yéene jàppale Ousmane Sonko ni ko xeex bi doo ci wéet ndax nag li ñu gis ni du jur jàmm démocratie la ñu fas yéene nërmeelal ñi sës ci ñoom ñu leen di jàpp front boobee lu mat euh, fukki euh, kuréel ak juróom bootu nañ ci dajaat taskatu xibaar yi laataa ñu ko def nag dañoo dem euh, ca màkkaanu Ousmane sonk waxtaan ak moom ba ñu génnee ci la ñu tënk Moussa Sène Serigne Gueye moo ñu fa demaloon. ni ki yeneen i organisation yu bokk ci société civile bi affaire Sweet Beauté bi soxal njiitu Pastef doon na lu yitteel front multilutte doy na plateforme bi dajale lu ëpp ñaar fukk ci collectif ne ñu ngi ci gannaaw Ousmane Sonko. victime doy na di ci fësal bu baax a baax a baax seen ak jàppale ci usmaan Sonko parce que dañu jàpp ne jàppalewuñu Ousmane Sonko. pour sa personne mais dañu jàppale Ousmane Sonko pour sauver des génération pour sauver liberté. ñu xam ko ci xeexal lépp lu aju ci justice sociale plateforme bi fas na yéene jël plan su x ci dossier bi ngir jàppale ko député bi. ñu soppaleku tey ñun ñëpp nekk ay x.